salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi sant sunu borom subhaanahu wa taala di julli ci jaamam ba di sànq ci ñëpp di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom moom mi dara tawul yàlla na sunu borom dolli def ci réew mi jàmm yàlla na ci sunu xalif généraux yi jiitu yàlla na sunu borom mbasal nu mbas mi. ñoo ngi ñaan ba léegi sunu borom moom mi dara tawul képp nga xam ne sol nga sa daal di jëmale ko ci diine islam yàlla na sunu borom sàmm yàlla na sunu borom aar ba. naa yi ngay naal suñu borom sottal ko leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak rajo Dakar international ci seen émission jotaayu xam-xam macha allah jotaayu xam-xam nag ni ko yàgg waxee rek njariñ kese kese kese la. dangeen ngeen nu laajaat nag ngir ñu indilaatal leen seen Jibril ngir liñ leen indiloon ci moom doyu leen wala doyalu leen ci moom kon ba tax na ñu fekk si wat ka moom it macha allah mu nangul nu ko ngir jariñ leen moo ko fi baa sëriñ bi nuyu na la la bàyyi nga saafoon teeg sa soppe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 di nuyu ñi nga xam ne ñooy seetaan rajo bi yëpp. di ñaan yàlla muy dolli sutura yàlla na yàlla dolli sutura. yàlla muy barkeel yàlla na yàlla barkeel. Euh, lépp loo xam ne wax nañ ko fi muy xam-xam. Mm. yàlla miy may dégg ak topp yàlla nañ yàlla may dégg ak yàlla miy def barke ci mboole mi mbiri mm. yàlla na yàlla def suñu waxtaan yi barke ak bépp waxtaan bu ñu mos a waxtaan ñu ngi lay déglu macha allah sëñ Jibril mm-hmm. dañu seetaan keroog télé mm-hmm. émission bu doon am 2 wala suma gasañe mhm. am benn émission bu tudd confrontation di tax sax ma sañ ko cité. Mhm. mooy dañ fa invité woon ay boroomi xam-xam. Mhm. ay sëriñ. tey nag ñu ni wax fa dëgg yàlla yàlla na ñu waxtaan ak yow ci lu nu mel. yaakaar naa am nañ ci digal. bisimilah léegi sëriñ bi ñu gis. am ku woote ci digg émission bi. ni leen yéen gisuma ngeen nuru sëriñ ci seen nuyoo. nuru sëriñ ci nuyoo jaat lu warteef la ci sëriñ bu toog wala. Eh, fa tabaarakallaahu dinañ ci nangoo wax mm-hmm. eh, boo leen ñu mayoo ñetti mbir mm-hmm. benn mm-hmm. mooy wax giñ ci wax dañ ci wax ci ngir jëmmi yàlla waaye yéen it boo leen koy dugal bu leen wax ni Serigne Jibril attaque wala Serigne Jibril tacle wala Serigne Jibril corrige sévèrement comme yooyu ni ngeen koy defee mel ni man damay tontonte ak ñoom tontonte wuñu Euh, fa tabaarakallaahu naa ci leeral ci xam-xam mm-hmm. waaye yam ci xam-xam mm-hmm. euh, nduru sëriñ mm-hmm. ci nuyoo am na xam nga fa tabaarakallaahu arab moo ni waxal ñu xam yow yaay kan sëriñ Cuun kooku lam wax mën na yellu mën na nekk dëgg ndax doomu daara dafa am luñ koy xamee doomu daara su waxee rek war nañu mën a xam ki wax doomu daara la ab taalibe sëriñ boo waxee war nañu mën a xam kii di wax sëriñ la mi ngi mel ne Macky Sall mu doon def discours rek noonu mu naan cher compatriote wala cher sénégalais dafa am lu muy def ci discours am waaye taalibe bu nuyoo waxi arabam julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme fa tabaarakallaahu niñ ko defee ci ubbi bi gàttal ko wala nuñ ko mën a defee gën kaa guddal fa tabaarakallaahu wax ba mu saf xam-xam ndax nee naa la taalibe ak sëriñ xaalalaaw xaala rasul rek lañ koy doy sëriñ doy ko doy wuñ ko leneen du loolu yàlla nee na yonent bi nee na rek la ñuy doy sëriñ euh, fa tabaarakallaahu bu waxee nag ndax seetaanuñu émission bi moo tax ñu mën cee xam lii ndax bu ñu ko seetaan woon duñ ci mën a wax ñoom bu ñu tàmbalee seen biir yi wax taalibe feeñu ci mooy waxuñu seen ubbi ubbi goo xam ne ba nga xam ni kii daara doomi daara la mm. nee na am na kum ci waxoon am na kum ci wax sax ni ko na nga waxee aay ba da nga yàq am na wax na ci loolu. wax na ci loolu nee na na nga waxee aaya ba sax da nga yàq. Mm-hmm. kon fa tabaarakallaahu moom xëy na seelu na loolu. ñun wallaay bi ñuy waxtu bi bi ñuy seetaan émission bi seetluwuñ ci loolu. Mm-hmm. Euh, ndax taalibe. Mm-hmm. daal am na comportement bu war a am. doomi daara am na comportement bi ñu war a am yàgg naa ko wax sama émission yi. nee naa la sëriñ daal li ñu koy xamee. mooy xaala raaw xaala laaw xaala rasulu. mu mel na léegi nga baal ma bari na sëriñ si toog ci kanamu télé yi duñu wax aaya sax. te ay sëriñ la ñuy mbubboo waaw wax naa ko fépp mhm. nee naa Sénégal rek mhm. nga gis sëriñ bu toog ci plateau tele wax ba mu jeex mhm. doo dégg mu wax yàlla nee na yonent bi nee na te aaye alquran yi mooy sukkandiku doomu adama boo waxee bu ñu nee indi sa dalil mais neel yàllaa ni xanaa leer na wala ñu la indi sa dalil nga ne yonent benni sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee ci biir waxtaan bi sax am na foo xam ni wax euh, cuq na leen wallahi fa ma toog maa ngi rëg-rëgi ndax dafa ni leen rab waaw amul rab amul loolu leen wax ku wax rab am am na naa fekk nga jinne moo am wallahi moom mi dugg am na lu mu wax ci ñoo toogoon ca plateau ba waaye moom bu toogee ni rab amul bu dee mus na nangu alalu nit ci fajub rab na xam ne la mu lekk riba la te moom wane na boppam mm-hmm. wan na ni carrément ni moom mbirum rab xamu ci dara waaw ndax rab lu am la. léegi sëriñ Jibril est-ce que du problème bi mooy confusion dafa am. Mhm. rab jinne seytaane yooyu yëpp dafa mel ni nit ñi problème mu comprendre loolu moo la la am léegi ñu ngi lay laaj. Mhm. nan nga nu koy détaillé. xam nga bi mu nee rab am na. Mhm. la ma doon xaar bu coupé rek. kay njëkk wax ay alquran la indi. cun ñun moomuñ sunu bopp. dëgg la yàlla moo ñu moom. dafa jël lettre bu mel ni alquran jox ko rasulullah sallallahu alayhi ñu war a jàng lettre bi keroog ba ñu yàlla bindee ñu judd wala keroog ba mu njëkkee bind aadama ba bultu ba euh, buftu ba di wal lépp mi ci alquran rab lu am la yàlla moo ne ci alquran wa maa xalaqtul jinna wal insi ilaa li yaabuduni man yàlla maa bind nit ak jinne pour ñu jaamu nga dégg nga ne ma sëñ bi kii jinne la wax yàlla waxu rab nga may ma ma ñëw dama bëgg bu ma ko tojee tey mu jeex tàkk ci problème mu rab ak jinne ndax boo xoolee am na ñu duggaat ci biir émission bi di ci guddal sax naan rab amul rab amul jinne moo am mu lenn la ñëpp ñi ci xamul lu bari ay sëriñ sax xamuñu ci lu bari yàlla waxaat wal jaan xalaqnaahu min maarijin samuumi man yàlla maa bind jinne ci safara ardent mooy xal bu xonk cuur te du am saxaar jinne nga ne sëñ bi dafa mel ni jinne ak rab ñaari turi bokkul olof danaan jinne da ngay dégg mu ni waar rab mm-hmm. gis nga cuur olof mm-hmm. moo tàmm di wax jinne langue olof amul ay langue yu ñu bare arabe ak français lu ne lañ jël boole kook muy olof mi ngi mel ni oto lan la oto français la français la mhm. ñun ñep auto la wax suñu auto yi te auto ndamar la deug la jinne turum ci olof pire moy mhm. rap ah. waye mag ñu ñoo bëggoon di différencier mhm. di wax jinne moy jinne bu baax rap ñuy wax jinne bu say say waye rap moy jinne olof rap lay wax jinne ta lang bu ne amna lu muy waxee euh, fa tabarakallah jinne amna jinné jinne ci ñoom waaw boo demee ci tubaab bi ñoom li ñu xam ci jinne mooy demoo duñ ko wax jinne boo demee ci espagnol yi li ñu xam ci jinne mooy dañ koy wax demonios boo demee Portugal li ñu xam ci jinne dañ koy wax démoni boo demee turki li ñu xam ci jinne dañ koy wax iblis la boo demee ci anglais li ñu xam ci rab dañ koy wax the démon lii yëpp yëpp yëpp égal rab égal jinne égal rab te yàlla moo ñu wax ci alquran citation direct aaya bu leer wa maa xalaqtul jinna wal insi illaa liya'budun ku weddil weddil yàlla mu ñëwaat ni man maa bind nit ak jinne pour ñu jaamu es ce que xam nga keroog yowmal xiyaam ni ñi àttee nit ci ay ibaadaam ndax woor na ndax julli na ndax aji na màkka noonu la ñuy àttee rab yi noonu la ñuy àttee jinne yi mu waxaat ni jinne bi man maa ko bind wal jaanu xalaqnaahu ji maariji samoomin ñun yàlla mo bind ñu ci ban ñom ñu bind leen ci safara xana xamoo loolu moo nekkoon problème iblis iblis men xana xamoo iblis jinde la ñu bari tek nañ ko malaayka yàgg gim yàggal malaika yi moo tax ñu jaawale ak malaika nañu gëstu xam-xam nañu wax xam-xam iblis du malaika déedéet doo ko mos a dégg fenn yàgg gim yàggal malaayka yi moo tax ñu koy wax ñu koy wooye malaayka ndax iblis ci malaika yi la yaroo keroog ba ko yàlla ne iblis su jootal aadama dafa ne ko nan laay su jootee kii man nga bind ma ci safara kii nga bind ko ci ban hmm. nga naan ma su jootalal kii hmm. foofu iblis réyee ko dugg waaye pour wax ni la hmm. jinne ak nit seen différence xam nga lan la jinne kenn du ko gis jinne kenn du ko gis ah sëriñ bi jinne kat wax fa dëgg yàlla gis nañu ay borom xam-xam bi toog waaw ndare foofu damay ñu ñëw ndare ñu yàlla may basiira ñu mën ko gis am na ñu ko mën a gis waaye yombut a gis invisible la am na ñoo xam ne nag yàlla moo leen may ci coobareem ndax innal fadlu bi di laa yuutihi man yasha ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yàlla moo koy jox ku ko neex am nañ à l'œil nu la mhm. mais am nañu yàlla may ñoo xam ne ñu mën ko gis mhm. di jëflanteeg moom di sëyeeg moom di takkanteeg ñoom di amoon ñoom doom dafa am du jinne mhm. am du nit nit dañ koy gis di ko làmb di ko daj mais jinne kenn du ko gis kenn du ko làmb kenn du ko daj lu dul ku yàlla may nga mën a jëflanteeg moom wala yàlla baaxee la nga gis ko. wala bu paree pour ñëw pour jomb la des fois nga jëflante koo xam ne ci bedd bi jinne la te doo xam. dox ba dajeeg jinne ci. mën na ñëw nuyu la xàmme lu ko la wax ak yow wax ju tey jëflanteeg yoo dem jinne bu parewul pour jommal la amul danger jinne bu paree pour jommal la rek lay soppaliku kon fa tabaarakallaahu wax jooju moom na leer déjà mooy jinne ak benn la loolu moom bëgg naa. ñu tëj baa boobu noonu. ba pare nag. Mhm. Euh, fa tabaarakallaahu jinne nekk lu am solo. Mm. waaw. Ah, jinne limu yàq lépp. lim nan la mën a yàqee noonu la mën a defaree xanaa xamoo ni. Uh-huh. bari nag koo gis boutique doxul. Mhm. ñu naan liggéey dafa nekk ci boutique bi daa jëflanteeg jinne am na jinne yoo xam ne am na nooy ñàkkee am kaaraange si sa place ñëw ñu la jaay ma sàngam nga jaay leen ko dootoo doxalati. boutique bi ràpp lay def. waaw. dafa gis particulier boo xam ne jinne yi ño ko toppee ñoo ko toppee Europe. oto bi rafet lool ñu toppee ko Europe ñëw dugg ci biir oto bi nga ñëw oto bi teg ko sa parking di ko jaay ba sonn mënoo ko jar mënut ta jar waxoon naa fi sama émission nee naa la am na kër yoo xam ne yenn couleur yi bu ñu ko coloré du neex a jar bari na kër yu ñuy jaay rafet na prix bi jafewul waaye mu taw a jar dinaa ca dëkk am na terrain yu ñuy jaay fa tabaarakallaahu mel na nam war a mel yànj na waaye jinnaa fa nekk ba mu naqaree jaay ku ñëw da nga waxaale waaye doo di kat léegi loolu lu ci pexe moom fa tabaarakallaahu ñaan yàlla tuun yàlla moo ne adduuni astajib lakum damay hmm. faral di wax naan ni yàlla ñàkkul fayda déedéet déedéet tarus naa fenante ak ñun ñaan leen ma ma may leen hmm. ñaan leen ma ma may leen hmm. fa tabaarakallaahu te foofu naa ci maye dara ndax ñun li may faral di wax naan mooy jaamu yàlla yi njariñu moo ëpp solo ummatu seydina Muhammad xetti li ko moo ëpp solo nit ñu ñëw sunu kër di ñu rang amul solo képp ko xam ne am nga terrain bu tëw a jar wutal ay gone yu sel nga dajale len ci terrain bi wala nga dajale len ci kër gi ñu jàngal la trois ayatul kursi yu ayatul kursi yu buñ eggee wala yauduhu ifsuhuma wa huwa al aliyun al azim ñu baamu ko 313 fois ayatul kursi bu nek 313 cent treize ayatul kursi yu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 kon pour wànni la noonu lañ koy jàngee trois cent treize fois wala yu uduhu bu ñu yegg rek baamu ko trois cent treize buñ paree def ko ci ndox wàq ci terrain bi wala toj ci kër gi suul ko fa jinne ju fa nekkoon jug dem fekkee oto la ñu wis ko ñu eh, ñu sang ko oto bi insha allahu rabbi bu dee dañ koy jaay dana jar bu dee boutique bi ñu wis ko ci boutique bi mm. waaw kon pour wànni la mm. bari na jinne lu muy yàq dana téye ba du am jëkkër jinne bari na xale jigéen ñu rafet nekk ndakaar gi di taxawaalu ñoom ñëpp jinne leen téye nu mu lay téye dana jàpp nit mu ni nu mu lay xam nga jinne fa tabaarakallaahu day ànd nit ci ay façon yu bari mm-hmm. jinne mm-hmm. daloo topp ngir dalaa bëgg da ngeen bokk jikko mm-hmm. dana topp par relation amoureuse am ci yow cofeel da nga am jëkkër sax nekk ci biiru sëy bi jinne ji bëgg la ah, cuun nag bu mu la jaaxal am na ñu nekk ci réew mii nii jabar jaamu rek leen tere nelaw <laughs> te jinne leen gën a saay-saay dëgg kon fa tabaarakallaahu jine ni muy toppee nit bari nit dana dugg ci biir sëy nekk jànq jine faalewu ko waaye mu dugg ci biir sëy keroog bañ koy takk rek xew ma rëy rëy ba jiney ñëw wuy si ah, ku am xew di woote mbooloo yaa woote ku woote gis ñëpp mm. moo tax am na xew yoo xam dañ koy waajal mm. fa tabaarakallaahu du nuyu sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Basiru Sarr mm. ca Kaolack buñ daan waaj xew am ca daara ja am na ay dog yu mu doon jox pour ñu pour ñu jàng ko ah nga foog ni Tiwaawan bu ñu wootee gàmmu dañuy def noonu rek xew kese ni danañ wàcce ay ay kaamil dafi dog Touba dañuy wàcc ay kaamil dafi dog hmm. pour mbir mi ñëw yegg si ci jàmm hmm. xanaa xamoo màggal Touba boo gisee accident yi bari hmm. ah Serigne Touba daa bari ay taalibe jinne bàyyi basar baara maam yi danak Cheikh Mbacke bu wootee nit ak jinne ñëppay wuyu ji te jinne yi seen circulation bokkut ak sunu circulation ñoom day am embouteillage déedéet ñun dañuy am embouteillage te ñoom dañuy fàdd dem ah. waaw wow te est-ce que xam nga jinne bi gën a garaaw bu xasee ba gëm-gëm na nit mën na gëm di déngi dénga am na jinne bu la gëmee dëgg dëgg dëgg dëgg boo wootee day raf-rafi day yàkkamti nga sant ko mission mu def ko mu leer nag man aw may jinne sëñ Jibril waaw man aw may jinne ah mais sëriñ bi li nga xam ni yëpp ci jinne nu demee nii waa gëstu rek xam-xam man alquran laa am man yàlla laa am saydul wujud wa alami shuhud laa am lan moo tax sëriñ si di bàkkoo jinne ngay dàq jinne waaw doyee di doyee di alquran moo gën a foor jinne hmm. alquran mm-hmm. moo gën a foor jinne mm-hmm. nekk nit personnalité bi nekk ci nekk nit yow demandé woon yàlla nekk nekk nit mm-hmm. est-ce que xam nga jinne yi bu ñu yoon ti yàlla moo xam ne nekk jinne yow nga nekk nit ki yàlla gën mu gënal ko lépp mu def ko nit muy seddil wujud wa alami shuhud bàyyi Faatumata binti rasoul maami Cheikhu Tidiane maami Cheikh Abdou Qadir Jilani yaakaari Cheikh Ahmadou Bamba kon kooku bu nekkee nit nga nekk ñu sant ci yàlla. ma macha allah léegi sëñ Diourine dafa am tey lu ñuy dégg. Mhm. dëkk bi rab sàngam moo fa tëdd. Mhm. dëkk bi est-ce que loolu wér na est-ce que rab yi léegi ñoom ñu fay tëdd ñoom moom dëkk bi wala nan la demee noonu. waa xam nga fa tabaarakallaahu rab. mu mhm. ngi mel ni nga naan ba xam diw moo Serigne Touba moom Touba. yàlla moo bind cërale. jinne yi nekk mbindeef suñu borom. di dox ci wërsëgu yàlla. Eh, fa tabaarakallaa da nga gis ku sanc dëkk tuddee ko daaru salaam mm. da nga gis ku sant dëkk tuddee ko nangam da nga gis ku sant ñaata yoon ngay dox ci àll bi mm. dëgg kër paate xari kër nangam kër nangam kër nangam noonu rek la mel mm. moo tax Sénégal mm-hmm. bari na ay jinne yu fi am ci réew waaw rab lañ leen wax waaye jinne la mooy rab rek rab ak jinne c'est la chose mm-hmm. ci réew mii li ci ëpp ñu xam leen mooy yu dëkk ci côté géej xam nga jinne dafa tànn dëkkukaay mm-hmm. am na jinne yoo xam ne ci côté géej la ñuy dëkk na jinne yoo xam ne fa tabaarakallaahu taamu nañu dëkk euh, ci armeer ci biir ci biir armeer am na jinne yoo xam ne taamu nañu dëkk ci ay guy lu mel ni bentante mooy ngandim guy yu mag mag mag yooyu am na jinne yoo xam ne taamu nañu dëkk ci àll waaye am na jinne yoo xam ne dañoo taamu dëkk ci géej Sénégal nag ñun rab yi ñu fiy wax fa tabaarakallaahu boo tàmbalee ci géeju ndar bi ba Casamance foo yegg dëkk bu ne am na jinne ju fa nekk nekk borom dëkk ba di aar wala mu yàqal waa dëkk ba wala dëkk boobu di def ay sacrifice ak i sarax mu leen fekk ci liñ bëgg euh, fa tabaarakallaahu boo demee ndar maam Kumba Bang moo fa nekk. ca ca ndar. jigéen la de des mu mel ni xale ku am 17 ans des mu nga gis ko mu weex cur. nekk rafet. Mhm. mel ni pël waaw mel ni maam Kumba Bang maam Kumba Bang onze génn ndar ak dix bari na tàkku saaru ndar booy dégg mhm. doxin gi maam Kumba Bang da ciy bokk ci xale yi doxantu noonu waaw mhm. moo nekk Saint-Louis ca géeju ndar yi moo li xam nañ ci dara boo demee yoof maam njare moo fa nekk waaw maam njare mag la nit la xana xamoo jinne mën na indi melokaan bu ne te suma ma ñëwee ak yow fa tabarakallah da nga xam ni jinne mën na indi melokaan bu ne maam njare buy génn di soppali melokaanu jigéen lay yor 47 ans 56 ans du ko passé mukk maam jare waaw jeeg jeeg day ñuul moom maam jare moom maam jare maam mboose moo ne bi ngay dégg maa ngi koy dégg kay fois dana ñëw mel ni siran mooy jigéen lay doon. Mm-hmm. fa tabaarakallaahu day am génn. waaye day day day faral dem ci marché Kaolack bi di nduggi. maam Mboose maam Mboose. lu muy doyee ndugg bi. ah <laughs> jinne du caaxaan. jinne day jëndanteeg yow sax. te yàlla waaw jinne day jëndanteeg yow. nee naa la nit dana jaay boutique. Mm-hmm. jinne bi ñëw ci boutique bi di jëndanteeg moom. Mm-hmm. keroog ba mu ko joxee xaalis ba. fa tabaarakallaahu mu nangu xaalis ba ca la kon ñi nekk ci ñi yëngatu ci jaay war nañu war nañu. kaaraange takkaayu waaw mm. gis nga kaaraange dafa am solo. Mm. loo gis. Mm. kaaraange ko gën. Mm-hmm. boo demee mbuul. maam gisu moo fa nekk. ah mbuul moom it jigéen la. am na nag ku ñu xam Dakar Cap Vert. Mm-hmm. mu nekk jinne joo xam ne dañ ciy taxaw muy lëg daawur. moom jigéen la waaw lëg daawur góor la. Ah, lëg daaw koo dégg mu naan xam na jinne uh-huh. wala sëtu lëg daawar nga laaj ko ni ko lëg daawar lan la uh-huh. mu ne la lëg daawur jigéen la wàcc ko fa dem waxul dëgg lëg daawur góor la mën na nekk xale bu góor ci vingt cinq ans ba trente cinq ans wala quaranta ans des fois mu nekk fas bu weex bu bëggee génn dëgg uh-huh. nga xam ni guddi ajuma lay génn jeudi di wër ci Dakaaru yi te est-ce que xam nga bu mu la dajal bu dajee yow lu mu lay guddi am na boroom lëg daaw waaw maanaam tëddi waaw la dajee te bugg laa jommal uh-huh. dox ak yow ba sa kër li la sëñ nga ne ko amul la guddi am na borom déet sëñ waaw sëñ ñang guddi am na borom lëg uh-huh. daawul uh-huh. boo xoolee nee naa la boo tàmbalee Saint-Louis ba Casamance lëg daawur kese moo ci rabbu góor yi des yëpp rabbu jigéen la te maa ngi continuer liste bi léegi man maa ngi dégg ñu naan lëg daawur moo jur waaw lëg daawur momu jur kula ko wax laaj ko ba xam lëg daawur da tak sa wala da tak sa nday lëg daawur man nga nek fils biologique lu meuna nek la amna nitu yalla yu fi am yu fi am jabar jinne am ak ñom do lu wër la mais xale bi lay nit jinne wala nit jinne lay nek jinne lay nek waye am fils adoptif mi ngi mel tay mag sal adoptif mo won adop adopté mo won rek wala mu adopté kenn day am nga nek fils adoptif am mu xéñu la ni la yow sama dom nga bëgg jëflanté yow bëgg jëflanteeg yow jox la ay mbiram jox la xam-xam lolu mëna nek waye fils lu su mom do dégg kenn ku ni la sama yaay moo sëyeeg lëg daawar wala sama mama sey lëg daawar biologique amul fils biologique amul lëg daawur du jëflante amna nak ay doomi lëg daawur yo xamné ay jinne lañu xaw waaye lëg daawur jëf la déggut ak nit ba sëyee ak moom ba am doom ma continuer ay dem am na ku naan maam Kumba Kastel jigéen la gore maam Kumba Kastel maam Kumba Kastel maam Kumba Lam moo nekk Tëngéej Rufix maam Kumba Pay moo nekk Mboot hmm. maam Ndew Jiloor moo nekk Jiloor maam ma Géej moo nekk Joal Fajur dëkk ñoom Yékini Yékini xam na ci dara Hmm. waaw waaw maama géej ah nekkal kum neex traversé de déedéet waa Joal Fadiouth ñoo may dégg maam Mindis hmm. moo nekk Fatick mu bi jigéen la. maam Ngesu dëkk bu doy waar la bi. laa ilaaha illallah. bi beneen yoon faaw ñu jël la waxtaanee ci dëkk yi. incha maam Ngesu moo nekk Mboul. Hmm. am na kuñ naan may wata. wala yi wata. kooku nag nit ñi xam nañ ko. Mm. may wata wala mami wata mm. mami wata moom du génn lu dul sirem jinne ju rafet la ci kotu Guinée Bissau ak Nigéria la nekk diggante bi waaw des fois mu génn ñëw ba mel ni ka nekk Casamance te day jëflanteeg nit en sirène mooy mooy déedéet nit nekk ku rafet ah. nekk ku rafet mm. bari na jigéen joo gisoon da nga dégg ko ni damaa dajeeg benn jigéen ju rafet uh-huh. kooku fu ma koy gisaatee te da koy gis doo ko ñëwee sax laaj numéro waaye boo gisee tey dootu ko gisaat mukk jinne yi la moo tax ñi bëgg góor ñi bëgg jigéen uh-huh. ba def jigéen ju ñu gis doxaan ko dëgg doxaan jigéen joo xam ne ci ngay ci ngay jommee kon fa tabaarakallaahu uh-huh. uh, jinne lu am la rab lu am la waaye ummatu saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay tuur soor am na xam-xam la am na ñu ko xam ay reen tuur deret lépp amna waye fa tabaarakallaahu ñun yontu yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu yàlla bolel alquran lañu jàng moy lettre bi waaw afala yatadabbaruna alquran biñ ne alquran est ce que mën na faj rab alquran est ce que amna science yontu dafa naa xanaa alquran ما فرنا في fil من شيء يلا yàlla درج dara ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين القرآن لا أم القرآن لا يالا جوخ سونو سافر ييب تي القرآن لا نيك ناني فاجو سي القرآن دي فاجو تي سنة صلى الله عليه وسلم كون فتبارك الله تجنة لن رك مكو مانا داق موي القرآن xaaw fa la ñuy tëjee wax ci. macha allah kum sonal. lenn rek moo ko mën a دودل القرآن alxuraan. Mhm. léegi kon lan ngay may nit ñi nga xam ni boo bëggee muslu yow booy dem fenn ragal. Mhm. bëgg muslu ci ñoom. fa di génn sa kër. Mhm. da bi kalimaatillaahi. booy génn sa kër. ku bëgg muslu ci ñoom. danga nga naan auzu bi kalimaatillaahi taamaati min sharri maa xalaq. da muslu ci jinne yi. waaye da nga muslu ci nit ñi. maa ngi muslu ci yàlla ci xayu lépp lu mu bind. macha allah loolu ma tàll de. teg ci aayatul kursi yu. Hmm. suun ëpp naa ëpp naa sàggane. aayatul moom rek a mën ci seytaane moom rek moo mën ci jinne dara. teg ci falaxi teg ci naasi. Hmm. dem ci jàmm. waññeeku ci jàmm. Hmm. te fa benn gàllankoor doo ko am. waaye daal képp koo xam ne sa kër sentir nga jinne yi moom nekk ci te naxante wuñu. jàngal trois cent 313 ayatul kursi yu hmm. wala yauduhu xifzuhuma boo yegg hmm. nga baam ko cent 313 fois def ko ci ndox hmm. mën nga ko sangee say doom sotti ko ci kër gi jina ju fa nekkoon dana gën a daw macha allah waaw macha allah ba léegi sëñ Jibril danoo yàgg dégg ci ay nettali mag ñu naan jinne day yóbbu nit nga dégg ku ni jinne moo ma jël dugg man weer ci kii bi ci géej gi ñu dégg fa yi am sunu benn doom ñun sénégalais ku ne jam demoon jàngi France nga xam ni nee nañu réew yëpp bi ndajaloo wee di jongante moo ca raw. ñu yóbbuwoon ko France nag mu jàngi. toog ba si yàgg kenn gisu ko fenn du gis ko ci muy dund du gis ko ci mu faatu. kenn gisu ko fenn. sëñ Jibril kooku est-ce que du jinne yi ñoo ko yóbbu nga yaakaar. Euh, fa tabaarakallaahu jinne dina yóbbu nit. lu wér la. bare nañu bare euh, jinne yi ñoo leen sàcc. yóbbu leen ay at. ndax xam nga jinne li ma la wax ni la yombut a gis. cun yalla rek moy maye. Hmm. ken amul ken munul yalla rek mo man xolal jinne limi muy gis nit. Hmm. gaynde gis jinne hmm. moko ko yob, yomb te jinne ta gis gaynde xanaa xamoo gaynde yap jinne moko gënal sax yap, yàpp. waaw. gaynde fum dajje jinne lek rek nit nak ni mëne gis gaynde te jinne ta gis gaynde motax tak jinne yi des fois di sacc nit nawtal xelam yóbbu ko ci bi di and ak ñom nit ragal gim ragal gaynde bu gisee gaynde ni muy manifesté wo ci la jinne bi di xamne gaynde gi fi mu meuna daw wuti fenen motax ñu lay yobbu mhm. ay at mhm. nga tok ba siag rañu indi wat la lolu jinne da koy faral di def mhm. euh, jaari saw nak lenn rek lañ ci wax euh yalla ko yalla nit ya alamin yalla ko yalla nit ya ak ñi dem yeb bari na dafa nga deg wallahi diw dem na wacc njabotam xey rek dem mi ngi woon ak xelam. xëy rek dem nit koo xam ne mi ngi xelam di liggéey am jabar am doom xëy wàcc ko fa lépp dem. Mm. loolu yëpp fa tabaarakallaahu a ay musiba yu ñu seetloo ci Sénégal. Mm. moo tax sama bisu ñaan bi ma woote woon sama kër. Mm. yu jàng alquran waxoon naa ko fi. danaa ni ku gis yenn musiba yi nekk ci réew mi. nopp waratu la. waaye ku xam yenn musiba yi nekk ci at mi adduna bi sax nopp la waratu la. cuun adduaahu silaahul muminin ñaan mooy gànnaay jullit. Euh, jaari saw nag duñ ci guddal. ndax réew mi yëpp jaxasoo nañu. réew mi yëpp tiin na wallaahi dañ koy ñaanal yàlla wallaahi ñoo ngi ñaan yàlla mi mën a nit yàlla na ko yàlla nit yàlla mi nga xam ne ku dem mën na la indi yàlla na ko yàlla indiwaat te dara du sikki ci moom du pat du làgg yàlla mi nga xam ni moom moom rek moo xam lu ko yóbbu hmm. yàlla ko yàlla indi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa hmm. waaye maa ngi wax Sénégal na ko ñëpp defal ñaan hmm. cuun na ko ñëpp defal ñaan te ñaan bi ci mooy nañ ko jàngal suratu yaasin hmm. mu bu ñu yegg jàngal ko alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil hmm. alam yajcal kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bi xijaarati min sijilin fa jacalahum ka asfil maakulin hmm. ba juróom ba muy ba juróom-ñaari mu bi jeex fa tabaraka ñu ñu yaasin yéene ko ko ñaan yàlla gindi ko ku mënul loolu nga jàng lii ilaa fi qurayshin لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأجت وآمنه من خوف وآمنه من خوف nga baamu ko ba 313 fois doo ragal naan yomb na yomb na boo ko defee 313 fois nga ñaan yàlla jaari sow mi yàlla na ko yàlla nit insha allah rabbi te gëm naa ni dana feeñ dana feeñ insha allah rabbi te bu feeñee gémmin dar nopp astaghfirullah bu feeñee. loxo loxo dar gémmiñ day feeñ ci faatu wala. déedéet loolu duñ ci wax dara. Mm-hmm. cuun mm-hmm. ñun mm-hmm. duñu wax ni yàlla xamal nañu. xaybu aalimul xaybi wa shahadati yàlla la. waaye gëm nañu day feeñ tel ci lu gaaw lay feeñee. ndax ñoo ngi ñaan yàlla. te fa tabaarakallaahu ñaan daa ànd ak yaakaar. gëm nañu ñun li ñuy ñaan yàlla. li ñuy ñaan yàlla. yàlla danañu ko gindil ñun loolu lañu gëm. loolu lañ gëm waaye dana bu day feeñ ci faatoog day feeñ ci leneen cuun yàlla moo xam kenn xabul ku dul yàlla sëriñ Jibril nag doo ko mus a dégg mu ni nangam day am nangam day am damay faral di wax yàlla du xamal waxkat joxe naa ci ñaan yi nañ ko def waaye képp koo xam ne am nga doom fi mi toll wala magum jëmm nga mën ko defal sa bopp réew mi toll koo xam ni am nga doom bañ nga ñu jël ko wala mu dem wala lépp luy fëq di ko fëq maa ngi joxe dog bi ku ko mën a def def ko te tax ku ko def mujj insha allahu rabbi li may bëgg joxe ci kàttanu sunu borom ku ko def insha allahu rabbi sa dog dana mucc dog bi nan la fa tabaarakallaahu da ngay jàng fatiha bu sell def ñetti salaatul fatiha def wallaahu yaxsimuka min al naas mm-hmm. gàtt na de cent onze fois mm-hmm. wallaahu yaxsimuka min al naas mm-hmm. cent onze fois soo paree fa tabaarakallaahu nga teg ci qul auzu bi rabbil falaq cent onze fois ba pare nga teg ci yaddullaahi fawqa aydihim cent onze fois ba pare nga teg ci qul auzu bi rabbin naas cent onze fois wallahu yaxsimuka min alnaas cent mm. onze fois mm. qul abirabil falaq cent mm. onze fois yaddullahi fawqa aydihim cent onze fois qul abirabil naas cent onze fois ci kattanu sunu borom képp koo xam ne defal nga ko sa njaboot yéene ko ñaan yàlla sàmm ko insha allah rabbi yàlla sàmm na ko yàlla dana ko sàmm ba li ngay dégg ñu naan gone yi dem nañu wala sàcc nañ ko yàlla dana ko ci musal bo te jaari saw ay famille bu dee ñoo ngi may dégg mm. maa ngi wax sarax soo xam ne yomb na mm. sept kilo ceeb mm. sept kilo dugub sept kilo suukar nañ ko génne ngir jëmmi yàlla boole ko ak cent onze sa ndox ci kàttanu sunu borom yàlla mën na ci dolli sutura macha allah barewul te lu yomb la wallahi ni mu naqaree adduna noonu la ñu naqaree te ay waajuram ñoo ngi leen di masaw ñoo ñaan yàlla mi nga xam ne ku mu gindi mu gindeeku yàlla ko yàlla ngindi ba mu dellu si continuer ay jàng ba ñëw jëriñ Sénégal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah sëriñ bi léegi xëy na euh, ba léegi dañuy delluwaat rek ci émission boobu ñu la waxoon ni ci loolu la bëgg a waxtaan ngir ay doomi daaraa fa toogoon mm-hmm. ñu gis ni dalaloon nan la waxtaan ak yow ci yokk awra mm-hmm. ñu gis ni da nga ni da waxoon ni amul mënta ne mm-hmm. ñoom ñu toog ci plateau bi ni mën na ne waaw fa tabaarakallaahu sunu spécialité la muy faiblesse sexuelle damay faral di wax naan benn jàngoro lañ mën a faj muy impuissance sexuelle cuun impuissance sexuelle boo ko déggee mooy am na ñoo xam ne dañuy jug te dëgër am na ñoo xam ne day jug di dëgër waaye dañuy gaaw yegg am na ñoo xam ne sax dadul jug am na ñoo xam ne sax dadul jug am na ñoo xam li yor day dugg am na ñoo xam ne seen sexe bu jugee balaa ñu koy yegg seen awra seen soxna. Mm. sexe bi daanuwaat. Mm. am na ñoo xam ne ñooy jàpp seen sexe may ko doole pour mën a dugg ci awra bi. Mm. yooyu yëpp xeetu impuissance sexuelle la. waxoon naa la jinne dana ko def. masurbation dana ko def. cigarette dana ko def. hémorroïde dana ko def. sëy lu bari tamit dana ko def. fa tabaarakallah am na ñoo xam ne seen sexe tuuti. ba taamu nañ ci pour yokk ko. maa ngi lay waxaat fii. te insha allahu rabbi. ba àdduna di tukki doo dégg ko ni damaa yokk sama awra mu yokk. doo ko xeetu naxe la rek. awra lenn moo ko mën a yokk muy opération te buñ ko chirurgical te buñ ko opéré mhm. da nga gis mu mbaq dootul dëgër dootul day mbaq cuun yàlla moo xam nit ki ñii gàtt ñii ñuul mhm. ñii njool ñii xees mhm. yàlla mooy bindee noonu ñi nekk ay tungune noonu la awray mel ñii dañuy gàttale ñii yamle ñii le awra cër la mi ngi mel ni sama bakkan bi ma bëgg kaa yokku wala sama nopp yi ma bëgg kaa yokku wala sama tuñ yi ma bëgg kaa yokku. amul ay garab yu ko mën a yokk. amul dañuy wax rek. ah chirurgie rek. chirurgie rek moo ko mën a yokk. Hmm. lan cay diw. Hmm. lan cay diw muy yokk. Hmm. da koy neewiloo rek. du yokk da koy rek. mi ngi mel ni ñi nga dégg ñu ne damaa yokk sama ween wala damaa yokk sama samay samay samay taat dañ ma baal ci wax ji. da ngay toog ba si yàgg dégg ween ba nëpp. cancer du sein cancer du sein wala cest tàmbalee génn sax li ci nekk dafa bari ci ay conséquences. ni dana jéem a yokk awraam ba ba ni man bu ma yëgoon duma duma ko laal nee naa la awra lenn ci am solo coon mu jug tey dagar ta nga mën a yàgg tey siggi looloo jof te bu jugee daa war a siggi awra warta jug naan nii warta jug naan nii bu jugee dafa war a def nii dafa war a jëm kaw jug-jug la rek man du ma jug di yegg suuf su ma jugee dangay gis ni ni ma jugee nii damay jëm kaw awra bu jugee daa war a jëm kaw mm. awra lenn ci am solo dëgër ba mel ni mat mm. te borom di dugal tawa mm. taw tawa daan te du may doole waaw du ko may doole du dugal boppam moom mooy demal boppam macha allah yàlla nañ yàlla doole sutura ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doole aar doole sàmm waaye daal nit ñi euh, nañuy wax xam-xam te bàyyi naxe nañuy wax alquran nit mënta wax alquran ba jeexal ko nit mënta wax li fi yonent bi wàcc ci xadis ba jeexal ko Serigne Touba li mu fi bind da nga mën a wax ba jeexal ko Cheikh Cheikh ma Tidiane euh, Cheikh Seydou Hadji Malick li fi bind Mawlana Cheikh Ibrahim lépp mënoo ko wax kon balaa ngay wuti ji ay pexe waxal nit ñi xam-xam rek wax nit ñi xam-xam nit xool ba xam mën nañoo jëflante geew wala mën nañoo jëflante geew mm. ñoo ngi ñaan yàlla ci barke yonent bi yàlla yàlla doole sutura waaye sama mbokki taalibe yooyu toogoon ci plateau bi maa ngi leen di jéggalo bu baax mm. diingantewu ma ak yow ñoom. Mm. waxuma maa leen ëpp xam-xam ba ci kii woote woon. Mm. waaye xam-xam dafa laal leeral. Mm. boo la ñu seetsee dañuy leeral. ñoo ngi leen di jéggalu bu dee santi nañu suñu wax lu lu mel ni dañ leen se vexé. ragaluñ de. déedéet. waaw dañ leen di bañ a vexé rek. waaw dañ leen bañ a vexé rek ku xam sëriñ Jibril Niang. xam ni benn kilifa la amu yàlla. la si la la si El Hadj Abdou Si Dabakh waxoon. yetu dëgg bu meloon ni. caravage wala yat mm. jëkkoon ci diggu say Seydi Xaaji Malick ma door ko ci waaye nag suñu mbokki taalibe lañu mm. te fa tabaaraka damay wax ne ku xam benn araf mm. ci alquran man pare naa la pour boot sama digg ginnaaw ngay kalli kalli sama kaw ngir alquran bi nekk sa dënn kon nag mënumaa xam alquran nekk sa dënn sa dënn nga toog ci plateau tele nga xam ni télé yombul ñi lay seetaan pression te ñëpp mënuñu télé nga jum ma jël ko bëgg kaa def ndam di la attaqué loolu xalaatuma ko ñun yàlla rek la ñu gëm waaye dëgg yàlla xam daal lañ leeral macha allah xam-xam dafa laaj leeral am loo xam ne nag xëy na question de divertissement nag yooyu. yenn saa yi ñu dajeeg ñun ñun est-ce que sëñ Jibril du murit léegi nag. <laughs> tey dafa mel ni wax fa dëgg yàlla da nga murite lool léegi nag ñoom ñoo ko laaj sëñ Jibril est-ce que doo murit. ah fa tabaarakallaahu murit lañu de. ah waaw murit bi murit mooy kan ku na ma jëm ca yàlla. Mm-hmm. dañuy ñaan yàlla ku ñu fa jiitu mu taxaw xaar ñu fa. ku ñu fa jiitu. Mm-hmm. mu taxaw xaar ñu fa. dañuy ñaan yàlla ku ñu fa jiitu mm. ku fa ñëw mm. buñ la fa jiitoo rek ñëw fekk murit lañu mm. waaye fa tabarakallahu taalibi Cheikh Seydi Ahmad Tidiane lañu cheikhu suyuuxi xutbul awliyaay waaye fa tabarakallahu Serigne Jibril ku ko xam xam ni dafa am cofeel gu wér ci Cheikh Bamba la Serigne Hadi Touré waxoon nitu yàlla yépp naw naa leen ca yàlla mm. waaye gannaaw ba ma jaayanteeg Cheikhu Tidiane sëriñ Jibril ñang daal mm. ne la ñii laajte ba xam murit lañu mm. neel murit piir la murit xaqan laa murit saadix dëgg-dëgg bay jëfetee joxe addiye waaye daal wax dëgg yàlla jël nañu werd ci sunu sëriñ euh, fa tabaarakallaahu di jaan yàlla yàlla guddal fanam yàlla yàkku wéram sàmm ko ak waa daara yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah sëñ Jibril émission jotaayu xam-xam bég na lan mooy sa kàddu gu mujj Euh, di ñaan yàlla na yàlla dolli sutura mhm. yàlla dolli aar dolli sàmm te barkeel ah xam-xam rek lañ bëggoon wax mhm. ñoo ngi ñaan liñ fi wax comme xam-xam mhm. yàlla nañ yàlla may dégg ak topp ñoo ngi ñaan liñ fi wax euh, yàlla miy def barke yàlla na ci yàlla def barke te képp koo xam ne euh, jëf jëfe nga ko yàlla na ci yàlla defal barke ci barke rasulaay sallallahu alayhi wa sallam xetali Omar Serina Mohamed waaye yàlla sam sunu Sénégal yàlla sam ñiko dëkk yàlla sam sunu kilifa diine waye sam sunu doom sam sunu ndaw yi sam sunu tout tanki ba fa tabarakallah ben kilifa dotul jaaxleeti ci barki yonent bi salallaahu alayhi wasallam wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh macha allah émission jotaayu xam-xam la te ni ko sëñ Jibril waxee du weerante du daanaka du weerante nekkul woon ngir contre kenn wala dañuy leeral xam-xam ngir njariñ moo tax émission bi jóg kon dañ leen di jox dig daje beneen yoon te ak beneen kilifa ak yeneen i njariñ incha allahu taala waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu